président Ousmane Sonko amul jotu toog di jàpp lu benn nit amul toog di wax jàppal leen ma diw jàppal leen ma diw tey dañoo gis nag ay arrestation yoo xamante ni fii ci Sénégal ñu gis arrestation yoo xam ni ñu ngi koy def ay doomu aadama mais dafa am ñoo xam ni dañoo tey jug euh, sukkandiku ci di wax ni premier ministre bi moom moom mooy jàppalu doomu aadama yi moom mooy def naka su dul noonu yeneen a yeneen tey nag yu yooyu noonu ci lañ bëgg a ñëw indi ci ay quelques leeral ndax Sénégal dafa nekk réew boo xamante ni si réew bu naqaree defar la waaye tam tam nekk na réew moo xamante ni réew réew mu yomba defar la ci naka mooy tey président boo ko xoolee sax tey mu ngi génn di dem ci ay maara di di nuyoo di dem ci yenn terrain de football bi mais boo jàkkaarloog président Ousmane Sonko jàq ak Sonko ba nga xamoon bu njëkk ak bu tey bii da ngay xam ni kii nii euh, Ousmane Sonko mii guddi yi ñu toll nii mu ngi ci liggéey yu tar mu ngi ci yenn liggéey yoo xamante ni si xëy na dafa mënul ñàkk muy déplacé wu di dem ci yenn di dem ci yenn bërëb yi wala di dem ci yenn lu mel ni suñu suñu culture tey li mu wootee yeneen ak yeneen. mais jamono ji ku ko gis xam ni Sonko talatul sax nelaw yu doy beneen bi ci topp mooy tey dañoo gis ay nit yoo xamante ni si dañoo jug tey di toog ci plateau télé yi di attaquer président Ousmane Sonko di attaquer président yi mais dafa am loo xamante ni si dafa nekk ci ginnaaw tey nag li nekk ci ginnaaw loolu noonu loolu lan bëgg dikk carrément waxtaane ko ak yéen tey dafa am benn benn mouvement boo xam ni ñoom ñoo ko fal ci seen biir tey ngir taxaw ngir lan mooy taxaw eh, ni dañuy def faire face ak nguur gi fi nekk ndax lañu waxoon ñoom ca ba ñuy wër élection ya ba léegi nii ñoom bàyyiwuñ ko si naka tey mooy dañ doon def fu ñu dem ñoom bu ñu taxawee ni ñii mënuñoo jiite am réew ñii euh, tey ku leen jox Sénégal Sénégal day suuxee te fu ñu daan mos di dem di taxaw tey da ngay gis ni pétrole bi wala gaz bi wala yeneen ak yeneen moom la ñuy taxaw di ko campagne Sénégal nag mu nekk foo xam mu nekk noo xamante ni si tey euh, mën nañ jàpp nañ ci jàpp nañ ni nekk na ci pays yi nga xamante ni si ñu bëri dañoo yaakaar ni Sénégal moo gën a avancé si kanam mais Sénégal bokk na ci pays yi gën a deltu ci kanam ginnaaw parce que ñan ñoo ko deltul ginnaaw tey président bi fi nekkoon tey bi mu fi nekkee nan la fi nekkee woon mooy tooge fi du buur tey ku wax la sudul noonu mu fexe laa jàpp tëj tey bu fekkee danga nekk benn jeune bu déterminé mu fexe ba yàq sa àdduna tey bu fekkee da nga nekk benn homme politique boo xam ne tey da nga taxaw ni euh, damay damay taxaw eh, di xeexal sama askan gis nañ ci ku ci mel ni président Ousmane Sonko Diomaye fay yeneen leader ak ñoo xamante ni si tey dem nañ bu bëgg a wax waaye ñi muy wax ndax xam nañ ne bu ñu waxee caabi féete leen ginnaaw tey beneen bi si topp mooy Sénégal tey dañoo war a xalaat lu baree baree bare loo xamante ni si euh, ñëwagul mais dafa am mouvement boo xam ne dañu falu comme ni fi Macky Sall nekkee woon loolu lañ fi bëgg a nekkee bokk ci nguuram ni nañu fexe ba perturber ki nga xamante ni si mooy président Diomaye fay ak président Ousmane Sonko bu ko defee ñoom du ñu tala liggéey bu ko defee li président Macky Sall eh, jaar moment yi nga xamante ni si président euh, euh, Macky Sall euh, traversé na ko moment yooyu Bassirou Diomaye fay jaar ci ba nga xam ne du am jotul liggéey ndax lan ñoom seetaan na ni Bassirou Diomaye fay ñoom la ñu yaakaaroon ak li am ça fait ndax la ñu jàppoon mooy Diomaye day daal di daanu si PS bi mënul yor Sénégal mais bi ñu xoolee deux mois yi mu yi mu ñëwee dafa doxal doxaliinu président dafa doxal doxaliinu njiit dafa doxal doxaliinu ku jub doxal doxaliinu nit koo xamante ni si xaalis xaalis kii la xaalis jëralu la mais tey dama taxaw nekk président boo xam ne dama fas yéene liggéeyal sama askan fas yéene taxaw benn taxawaay boo xam ni képp ku sàccoon alalu Sénégal tey di nga ko indi képp koo xamante ni defoon nga naka sudul noonu dinañ la topp muy ñi fi xaalis xaalisi jàmbur ñi fi doonoon fay impo ñooñu nag tey jii ñoom ñoo ñoom ñoo mobilisé wu fay benn fay benn petit eh, nit yoo xam ni gis nañ leen ci ay manifestation benn lacrymogène lañ leen dóor ñoom ful boobu yëpp tas ñooñu nag tey ñoo taxaw bëgg a def faire face si naka tey ni ñoom ñooy taxaw fa seenee détruire ki nga xam ni mooy président Ousmane Sonko ak Diomaye ba duñu tala liggéey loolu nag ñoom bu nee mën nañ koo diggee c'est faux parce que man Sénégal ci jamono ji ñu toll nii ñii traversé nii nga xamante ne si kii mu ngi koy traversé muy président euh, Bassirou Diomaye traversé bi nga xam ne mu ngi koy traversé ak euh, président Ousmane Sonko ci liggéey gisaguma benn nit boo xamante si tey taxaw nga ngir jaar seen tànk yooyu ci naka mooy taxaw di wax dëgg sénégalais yi taxaw euh, di di di gindi askan wi ah fas yéene féete boor fas yéene taxaw taxaw opposition féete fa di leen seefe di wax dëgg mais tey ñi nga xamante ni tey fas yéene ñoo taxaw euh, nekk nekk nekkinu comme nekkinu opposition tey nañ lañ fi bëgg a taxawee mooy ñoom nañu nekkee woon buur ci bi pouvoir bi di fi nekk tey ñoom nooñu lañ bëgg a taxawee nekkee ni opposition léegi nag ñooñ bu ñu bëggee nekkee ni nekkee woon ci pouvoir bi di fay ay nit ak di yëkkati ay xaalis di ko jox ay jigéen wala yeneen yeneen ngir ñu xeex euh, gouvernement bi nga xamante ni moo fi nekk da ngeen di nax seen bopp te bu boobaa di ngeen di jeexal te li ngeen soxla ci Sénégal doo leen ko am Sénégal ndaw yi dañoo yeewu xam nañ bu baax fu ñuy teg seen bët ki ñu bëgg mooy ki nga xamante ni si da taxaw di defar Sénégal fexe ba ndaw yi am liggéey fexe ba tey tey jii nii mën naa ni la mm, lu ci bëri tey muy fajo bi muy lekk beeg naan bi yomb tey xolo jomaay ni mu defee baykat yi bi mu toogee dafa dikk waxtaan ak baykat yi génneel leen ay ay surprise dig leen ay surprise fas yéene leen koo indil tey nag ñooñu ñëpp tey am na ci baykat yoo xamante ni tey ay APR lañ dañuy am nañ ci ñoo xam sax da ngay toog seen da ngay toog seen birëb ñuy waxtaan ni lii de bu nekkee dig wii ñu leen dig de su nekkee dina nekk loo xamante ni dinañ kontaan lool ndax ñoom te ñoom dañ cee ànd ak confiance ak gëm boo xam ni jàpp nañ ni jomaay mi loolu noonu dina ko def ndax lan ndax li mu jot liggéey si géej gi ba yeneen ak yeneen ay surprise di ci génn ay yeneen ak yeneen ci ginnaaw bi ñu arrêté yenn jënd ak jaay yi nga xamante ni si ak yenn contrat yi ci géej gi mais da ngay gis ni carrément ni tey am nañu taxaw définitivement di génn dëgg am nañu taxaw définitivement di suul jëf jooju nga xam ne jomaay jëf na ko beneen bi si topp mooy tey euh, maanaam ñii nga xam ne ñoo ngi leen di arrêté seen arrestation yi day continuer di am ndax dafa ci bëri ay nit yoo xamante ni xaalis moom moo leen ci dugal te lekk nan xaalis boobu ba pare te mënatuñoo deltu ginnaaw léegi nag leen rek mooy risqué eh, prison kii ba muy toog dañu leen parti bii may fal muy président Ousmane Sonko prison ngi ci dee ngi ci leneen ak yeneen waxuma la ñàkk ay ay cër moom moo ci gën a tuuti waaye ñoom nag danoo dikk ni diaboliser gi nga xamante ni war nañ koo diaboliser ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di ñu di kujje gi fi nekk di nguurug jomaay tey dañ leen daf dañ leen a fay waaye xaalis bi nga xamante ni sii tey fay nañ leen dañu tey lana ci nekk muy kaso kaso ak yeneen ak yeneen kon tey jii yéen ñi nga xam ne dañ leen di nax di yëkkati xaalis di leen jox xaalis du dara mais da ngeen a war a xam ni Sénégal gawoon wone na tey ndaw yi fi nekk dañoo taxaw ngir face face ngir jàkkaarloo ñi nga xam ne dañ leen a jiital ba leen a faqastal ci dara di leen xool ba xam ñoom li ñu diggee dinañ ko def wala duñu ko def buñ ko deful ñu doog a trouver solution mais nag ndaw yi ñoom ànd nañ cee confiance bu rëy seen confiance boobu dafa gën a yokk ci nan mooy li leen gaa yi diggoon tey loolu noonu ñu ngi ko continuer di di di def mbokk yi dama ni euh, suul suul suul suul ker du ko teree feeñ nañu nangul kenn ku ci nekk li nga liggéey man foofu laay doxee te su may def sama chronique ci loolu laay gën a yaatale di wax ni sama gars yi naa ko yemeli fii suba dinañ gën a yaatalaat beneen waxtaan bu am solo